am fit xam ne kenn du ko menacé ci ay ay ay ñuy bale ay foofu ak ay suuf ci loolu bëggoon naa nga wane bëgg porté bo joxe naa ko bi ma demee Casamance ñu dema sànni nga gis ni man

laa El Hadj ñuy gis nii lan la <laughs> ñu ngi li ñuy gis noonu lii. waaw fii ñu ngi nii di ba sang ah, ah, ci bois sacré bi. waaw. waaw. nga xam ne man ma joolaa ñu bokk maam séeréer joolaa ñu bokk maam. waaw. ku ci def sa morom la boo da koy gis. jël ko. xam nga sañse bi nga sañse woon moom nga jël nii yóbbu ko. mais lii nii lii nii ban ban ban intérêt la aujourd'hui nga wane ko lii nii ba intérêt la aujourd'hui ñu koy wane. pour wane waaw <laughs> man joolaa laa. ok ndax ñoo bokk maam séeréer ak joolaa bokk benn maam. Mm. ku ci def sa morom yow joolaa bu dee séeréer torox na séeréer bu dee joolaa na ku def lu bon wala nga sa morom torox nga. Mm. da yàlla da koy tàgg tàgg bi. mais pour sant la nécessité génn gi wane. da ngay xupp laa xupp ma ah. am ci internet bi. ñu wane parti bii rek a sang nii. Mm-hmm. am naa fekk naan El na ba sama ennemi. Mm-hmm. ba dem di ko di ko sang day waaj a dee. <laughs> moo leen moo leen ni.

Euh, kalabaas baa ngeen ak kaan bi. te gëm nga koy met fal. Mhm. waaye mu nañu am jot bu rafet. dëgg la. Mhm. xoolal fii fii fii fii ñu may teeru di ma di ma fecc loo danse bi nga xam ni. Mhm. bu may falu moom laa war a. mooy rythme bi da ma gis may fecc. Ah, ñu booy falu fecc bii nga war a fecc. bu ñu la intronisé. Ah, ok intronisé ci xam nga ni Joola amul géwél. déedéet waa amul. amul ñoom ñëpp a yem. la amul hiérarchie quoi gën a démocratique ci monde bi. amul classe sociale daa mën a fecc nag. waaw merci le roi seen roi baa ngi fecc ak kan bi. ak kalabaax bi leen war a dundal ëllëg. sa nguur dina neex. ñun ñu may introniser fii. nguuru El Hadj. le roi El Hadj Diouf de la Casamance. nguuru El Hadj rek. ak bëgg a salsa. waaw ñëppay sanse ñëppay lekk ba suuf sama nguur. waaw dina neex jàmm am kenn du toj kër kenn du taal kër amul motal combat. combat bu sedd guy rek lépp bay neex. est-ce que fay nañ la. ay ñan. indemniser nañ. ku indemniser non non indemniser bu ñu ngi nekk ba léegi.